di ko ñaanit rëcci rëcc yu ñu yëg ak ñu yëgut yu ñu tay ak ñu tayut yàlla nañu boole labal ci géeju njéggalam gu yaatu gi bi jaahi saydil wujudi sallallahu alayhi wa sallam ñu del si ak yéen ci kartu na yàlla ak mbaaxam ci seen émission bu ñuy tuddee albayaan ngeen si ànd ak seen mbokk seen soppe seen xarit Mouhamed Tayib Cissé ñu continuer di wéy ak yéen ci waxtaanee ji koy soppe bi ak melokaanam ngir lan ngir ñu mën ko ci roy moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon ku ñu yàlla tegal ñu war koo rey ci jëfin war koo rey ci waxin war koo rey ci doxalin benn bu ci nekk nag ñu war see gagné bénéfice ak ay yëkkatiku yoo xamante ne fa tabaarakallaa mënuñu ko amee lu dul ci ñu jël suñu bët teg ko ci sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee nag nit buñ koy joxoñ rek jikkoo tax ñuy joxoñ nit waaye jikko bu rafet bu nekkul ci moom dootuñ ko mën a joxoñ ne ko yow mii nangam kon li ñuy ñëw pour fas yéene ko nafarlante ak mbindeef fii su ko defee yenent bi doonal koo xam ne rek dañuy ñëw pour tantal ko pour lan pour fettasu pour lan pour ah yenent bi de kenn la pour lan ngir yëg neex-neex ci sa biir xol déedéet loolu baax na gaa waaye dafa am lu ko ëpp sens lu ko ëpp sens mooy lan mooy melo yonent yàlla Muhammad mooy mbaaxam nga mooy dalam nga mooy teeyam nga mooy kersaam nga mooy xorma nga mooy mu ngoog yenn jikko yu kawe yu rafet yu baax yooyu buñ dé boo déggee ñu koy nettali ci sang bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow it da nga war a jóg def effort ngir jikko woo yooyu la jikko ngir lan ngir nga mën a am tiyaaba ngir lan ngir nga mën a am yiw ngir lan ngir nga mën a am yéeguwaay kon su ko defee cheikh seydil haaji malik radiallahu anhu da ko wax ci benn bayitam mooy min kulli wasfin hamidin haada afala tafdilin rajaul baraya yowmu masdahim mboolem melokaan wala jikko yu ñuy taggee nit bu ca gën a kawe gën ca taaru gën sa mucc ayib inti yàlla muhammad la ko yàlla subhanahu wa taala jagleel jikko yooyu nag muy fukki jikko yoo xamante ne moom la alquran cité bu ca jiitu mooy amaanatu ñaareel ba mooy asabru ñetteel ba mooy arrifqu ñeenteel ba mooy al istiqamatu juróomeel ba mooy alxayaau juróom benneel ba mooy asidqu juróom ñaareel mooy attawaaduu juróom ñetteel bi mooy alafu juróom ñeenteel bi mooy ashukru fukkeel bi mooy arrahmatu kon fukki jikko yi benn bu ci nekk doomu aadama war na góor góorgóorlu ba am lum ci jikkoo donte ne lépp mënu koo complété ndax jamono ji yàqu na yàqu goo xam ne kenn ku ci nekk sa jikko réer na la kenn ku ci nekk incarné woo jikkoy sang kon yii benn bu ci nekk defal effort ci sa dund bala ngaa wuy ji sa borom nga am jikko yoo changé ci sa bopp muy jikko yu suufee fexe jël jikko yu taaru yi daal di koy jikkoo yonent yàlla muhammad nag sallallahu alayhi wa sallam jikko yi lu mu bëri bari bëri tey dañuy cité benn ci jikkoy tab mooy jikkooy tabe pour waxtaanee ko fa tabarakallah li benn mag di wax nag nee na pour nga xam tabe dëgg dëgg dëgg foog nga xam lan mooy nay kon yonent yàlla muhammad ko tabe woon la ko baaxoon la ko mënoon may la moom sang bi yamunnu bi la manin wa yanfil maasiya kon su ko defee moom yonent bi danaan maye ak maye goo xam ne du ca ragal ñàkk da daan maye ba nit ñi tiit da daan maye ba nit ñi jaaxle kon su ko defee fa tabarakallahu moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam jëmm la woon joo xamante ne fa tabarakallahu mbooleem ku tabe woon ci jamono tabug yenent yàlla muhammad ñëw na muur sak tak laysa man man na bi manin ka man man na bi la manin fa rasulillahi yamunnu bi la manin wa yen fil maasiya su ko defee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sel mooy benn mindeef mi nga xam ne ak tabam dafa ñëw suul mbooleem tabug mindeef kon am na nit ñu ko fi jiitu woon ku ñuy wax euh, euh, Hassan bun Sabit Ansari nit la woon koo xamante ne dundoon na téeméeri at ak ñaar fukk ndax juróom benn fukki at yi mu ngi ko def avant l'islam ci kéefir juróom benn fukki at yi mu ngi ko def ci biir l'islam kon mu am téeméeri at ak ñaar fukk moom Hassan moom Hassan nag fa tabarakallahu euh, daan na wax yenent bi di ko cité di ko tagg di ko jox ay garaat ak ay dayo ci mayam mu ne lahu rahatun law anna maasara usriha alal bari kan al baru anda min al bahri moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal moo doon jëmm ji nga xamante ne lu nit di joxe fukki lu fukk ba sax mënta dab yenent yàlla muhammad ci tabam wala ci mayam daan na wax ba tey ma ne maa qaala la qattu illa fi tasahudihi law la tasahud kaana la ahu naamu moom yenent yàlla muhammad mooy jëmm ji nga xam ni eur bu waxee diit rek mooy dafay taaya mooy buy taaye naan ashhadu an laa laa googu mooy déet amul mbindeef bu fi nekk ku duwul yàlla déet boobu nee na si ngay wax yénti si ngay dégg yénti yàlla Muhammad mën a déet mais amul benn mbindeef bu mos a ñëw tàllal yénti yàlla Muhammad loxo mu lay gantal te moom sang bi daan na toog ay weer ci ndu tàkk këram ñaar yu ñuul yi la daan dundee ñu ne nay Aïcha ñaar yooyu la nag lan la mu ne ñaar yooyu de mooy tàndarama ak ndox daan nañ toog weer wala lu jege ñaari weer wala lu ko ëpp daan nañ dundee suñu kër ñaari ñuul yooyu mooy ndox ak tàndarma te teewul moom yeneen bi lu mu daan dundee ndox ak tàndarma ku ñëw tàllal loxo ngir ak may yeneen bi dana la may ba nga koomal ba ñoom sax dañuy mujj jéemu dañuy mujj jaax moo tax ma ne maa qaala laa qat illa fi tasahudihi law laa tasahud kaana laahu naamu moom yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu siri continue di wax mu ne nabiyuna laamiru naahi fala ahadun abarru fi qawli la minhu wala naam yonent bi daal sallallahu alayhi wa mooy jëmu ji nga xam ne amul kenn ku ko gën a dëggu ci wax gu mu wax déet waaye amul kenn ku ko gën a dëggu ci wax gu mu wax waaw kon dañuy wax arab yi di léebu ñu ne goor dëgg dëgg dëgg bu waxee déet déet gën a nekk déet bu waxee waaw waaw gën a nekk waaw waaye bu mu ne déet ne waaw mooy bi maanaan di wax ci suuf di wax ci kaw kooku doxut kooku di jikkoy góor kooku di jikkoy jullit kooku di jikkoy sang kon nit ñi nañuy daw jikko yu suufe yu doyadi yu manqué yu nga xam ne ku la dégg wala ku la gis wala ku la ca yëg daal di la cay xeeb su ko defee moo tax benn arab daan wax mu ne ida qulta naam fa admimhu fa inna naam daynun ala ruxay wajibun wa illa faqul la tastarix wa turixana li an la li an la yaqulu nas annaka kadibun nee na soo ne déet rek na doon déet ngir lan nee na ngir nga noppal nit ñi ngir nga noppal nit ñi bu nit ñi wax ne diw mi kat fenkat la am na ci ñoo xamante ne des fois danañuy wax waaw te seen waaw boobu mu wër leen ne leen déedéet lay doon kon tey nga ne déet rek fexe noppal nit ñi buñ ne diw fenkat la am na ñoo xam ne buñ ne déet seen déet boobu dana mujj doon waaw mais tey ñoo wax ne waaw rek mu teel leen a noppal kon am na ci loo xamante ne bul ko jikkowoo ba nit ñi xeeb la ci moo tax am na ñu fi jiitu woon sang bi sallallahu alayhi wa sallam muy ñu baax mu ñu yëwén muy ñu tabee ñoo xamante ne dañ daan maye ba ñu génération daan yéemu ci seen tab waaye it yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mu ñëwee dañoo fàttee tabu gaa yu baax yu sell yooyu. mën nañ ci cité kenn ku ñuy wax xaatimu ta'i kenn la woon ku tabe ku baaxoon koo xamante ne lim daan maye yéem na mbindeef fii moom xaatimu ta daan na maye daan na maye daan na maye maye na jour maye jour maye jour nga xamante ne am na benn doomam boo xam ne jàppoon nañ ko mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko nettalil ma lenn ci sa mbiru bay waaye xaatimu taa yi mbindeef la woon moo xam ne lim daan maye kenn xamut nu mu toll lim daan maye kenn xamut nu mu toll un jour na maye maye ba jeexal takk desitu dara mu génn dëkk bi ak fasam ak moolu fas wa ak tegu or wa bëgg a génn dëkk bi parce que lu tax mu ne rus na toog ci dëkk bi nit di ko fi fekk di ko diis soxla te ko mën a faj xoolal ma ñëw rek. mu génn am kum tesel kooku ne ko man de xaatimu ta'i laa doon laaj mu ne ko waa moom da ngay waxal ni mu dis xaatim soxla bi xaatimu ne ko man de ñàkk li ma joxe moom ma tax a génn dëkk bi lii de laa fi dese mooy fas wi ak teg wi nga xam ne or la dama bëgg nga jël ko mu jël ko daal di war dem xaatimu taay mi ngi ànd ak jaam bi mais waa bu mu waree fas bi continuer dox di dem as diir rek xaatimu taay di waxtaan di waxtaan di waxtaan geesu gisul ci gannaawam kenn nekk te gis na waa ji mooy mooy jaam bi mi ngi dàqanteeg moolu fas bi pour bu mu bokk ci may bi xaatimu jooru waa ji waa ji geesu waa ji ne waaw nii la mën a demee de xaatimu taay dafa juum ci may gi parce que may gii ma gis niiw na ko ko may waa ji bu mu gëstoo mu ne ko gis nga waa jooju di dàqanteeg moolu fas mu ne ko waa ñoom mu ne ko ñoom ñaar ñëpp ci may gi lañ bokk kii kan moo ko gën a mën a may waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa fa tabarakallahu ñëw na muur mbooleem taboggaay yu baax yi moom xaatim daan na wax jaamam bi ne ko awqit fa inna layla laylu xarri wa reexu yaa waaqit reexu sarri al laylu naar kaman yamur in jalaba dayfa anta xurr mooy naarul xiraa mooy bu Busiri di wax ci burdu boo ko déggee arab yi daan ko def mooy naarul xiraa mooy mooy mooy mooy dañ daan taal safara bu ngoon xasee jot rek ngir lan ngir képp kuy dox ci àll ba seen tàkk-tàkk safara bi mu leer la ne boo fa demee danga sangu da nga lekk danga naan danga nga am foo fanaan ba xëy door a yeggali ci sa yoon loolu la arab yi daan def waaye daan na wax jaamam bi ne ko deel taal safara boo xam ne dafa may indil gan safara bi heure bu ma indilee gan rek yow mii dama lay goreel ngir jëm yàlla aw xit ya aw xit fa inna layla laylu xarri wa reexu yaa waaqit reexu sarri alaylu naar kaman yamur in jala ba day fa anta xor naan ko heure bu ma sa safara si indilee gan rek fa tabaarakallaahu yow dinaa la goreel kon su ko defee waaye yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mu ñëwee dañoo fàtte tabuk xaatimu taa yi dañoo fàtte tabuk gaa yu baax yi moo tax ibrahima ñes radiallahu anhu daan wax ne tazakartu lan laa anni nasitu muhammadan jawaadan yu nasi sayba isra la waqe ma ne tazakartu fàttaliku naa ñu ne ko bàyyi da nga fee jotakoon fàtte bi mu ne déedéet laa nasi laa anni man duma mos a fàtte yonent yàlla muhammad ndax jawaadun yu si fi tay ba israel waqe moom yenente bi dafa doonoon jëmm joo xam ne ak tabam loo ko jël di ko méngaleeg loolu rek yaa ngi suufeel sa méngale googu ci ci ron yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax tab gu mu taboon ak yéeme gu mu yéeme ci joxe fa tabarakallahu ba ay ay daan daan daan yéemu ci lool moo tax euh, keroog ba mu jàppee doomu xaatimu taa ne ko damaa bëgg nga waxal ma dara ci sa baay ci ay jaar-jaaram wala ay doxalinam wala dundinam doom ji ne ko sama baay de ko baaxoon la ku yéeme woon la ku mënoon a may la waaye daal bokk na ci lu ma gën a yéem wax ba pare daaneel yenente bi ne ko wallahi law kaan abuka muminan la tarxam na alay sa baay su nekkoon jullit danañ ko ñaanal yàlla yërëm ko waaye nekkul jullit kon su ko defee foofu nga déggatee fa ne képp kuy mindeef te doo jullit boo dee jullit bi amul droit ñaanal la yërëmandeeg borom bi déedéet Sénégal ak nafeqi rek ak parparloo ak bëgg jaxase moo tax ñu bëri léegoo léeg am xaritu catholique sax bu dee ñu ne waaw dañoo bokk nañu nañu ñaa déedéet yooyu yëpp taxawul nañ leen di tënku ci sari ayinti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bañ bañ a jaxase bañ a jaxase bañ cee def lu ci bokkul kon su ko defee Xaalit un am na ko mu dajeel waa ji ne ko sa nada wal juuda hurrani antuma fa qala jami'an innana la abidun fa qultu wa man mawlakuma fa tatawala ilayya fa qala khalidun wa yazid dafa taseeg benn wa ji ne man de dama dajeeg euh, dama tajeeg euh, euh, may ak tat ne leen ndax yéen ñaar ay góor ngeen ñu ne ko déedéet ñun ay jaam lañ kenn mooy suñu sang mooy mooy Khalid ak Yazid Khalid ak mooy suñu mooy suñu mooy suñu sang kon su ko defee bu mu waxee loolu rek Khalid daal di koy may junne dirham junne dirham boo ko doon mingale da ngay wax ne ay millions la ci jamono jooju ay millions millions yu takk ba mu ko waxee lool ah euh, Xaalid may ko may gu rëy googu waa ji continuer di taggaat di taggaat Xaalid ne ko fa anta nada wa ibnu nada wa aqu nada wa xaalifu nada maali nada an ka masab yow daal yaay tab yaay jëmmi tab yow yaay doomi tab yow yaay mbokki tab yow yaay ferelu tab yow daal tab mënu la dem sans yow mu mayaat ko junne mu ne ko daal min ayi nawaahi xasattuhu fa la jotuhul maarufa wal judu saahilun mu ne ko yow yaay ki nga xamante ne fa tabaarakallaahu ci mboolem wet wala nit fëgg rek fekk na daal nga complété li nga xamante ne yàlla baaxee na la ko ci xeetu ci xeetuk may mu ne ko daal sa sa tab géej la goo xamante ne du mos a ngacc te liñ fay jëlee it du mos a jeex mu joxaat ko junney dërëm mu ne ko bu xasbuka ma sami'ta waas bii ma maa jot mu ne ko li nga joxe doy na li ma wax doy na baax na ci mbindéef nit ki nag bu dul joxe du mën a am mag ñi dañuy léebu ñu ne lu ci tenqe bi bu ñëwut lu ci tikk njara bi du mën a ñëw lu ci tikk njara bi bu ñëwut lu ci conc bi du mën a ñëw lu ci conc bi bu ñëwut lu ci mbagg bi du mën a ñëw kon doomu aadama bi boo bëggee di am xéwal waxtu wu nekk del joxe dafa am benn mag ci Saloum doomam ñëw indi benn mbir mu ne ko lii lan la mu ne ko coffre mu ne ko lan la mu ne ko dencee kaayu xaalis mu ne ko waaye yow lii loo ciy def mu ne ko dama koy dama ciy denc xaalis mu ne ko yow ñi ñëw di la jox bu ñu utoon comme lii di denc ñoom est-ce que est-ce nga danañ da jot dara yow mu ne ko kon yow bu de bul denc yow lu ñëw rek liñ ci mën a dundee dundee ku la ca des nga joxe ko parce que ñoom bu ñu defoon nii nga def doo mën a jot ci ñoom dara xoolal ma wax jooju xekk ma bu garaaw boobu ku ñëw Kaabu Ibnu Malik dugg na àll ñetti fan yóbbuwaale ay juutuwaayam dajeeg benn nit nit ki ñaan ko ndox Kaabu jël ndox mi jox ko ko ngir tap waaye kàbbu mujj dee ci àll bi ngir ak loraangi waaye lu ko koy yóbboo mooy tam kon su ko defee fa tabarakallahu lii doon na loo xamante ne nit ki war na cay jàngatee bu baax a baax toj xolam fexe doon koo xamante ne koy joxe la bokk na ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mu jógee ko xaswatul xunayni ñu am fa màng yu bëree bëri bëri mboolem xasawaat yi nga xam ne yonent yàlla muhammad def na ko daan nañ ci am mbàng nag mbàng nag mbàng mooy ñu fay jëlee mais wax xaswatul Hunayn nag moo gën a bëri luñ ci jëlee ci mbàng bu mu ñëwee sallallahu alayhi wasallam euh, am benn waay jum may téeméeri gilem waaye ju ne ko wallahi laa umin man du ma gëm lii nga def nii du tax ma gëm de xam nga benn gélém rek ñaata la woon benn gélém ci jamono jooju mën nañoo wax ni kat-kat bu gën a seer ci kat-kat yi la yonent yàlla Muhammad jël téeméeri gélém may ko waaj waa ji ne ko duma gëm de mu jëlaat beneen téeméeri gélém dooleel waaj waa ji ne ko ba tey taxul ma gëm mu jëlaat beneen téeméer dooleel waaj mu ñetti téeméer gi la waa ji ne ko wallahi yaa ngi maye maye ku dul ragal ñàkk ne yent yàlla muhammad yaay sang su ko ci ronam daal di jébbul su ko ci ronam daal di jébbul moom la seydil xaaji malik ne wa bi xaylihi wa bi xayrihi jalabal wara yenent yàlla muhammad ci yiwam nga ak lewetam nga ak mbaaxam nga tax na mu propagande ay mbindeef dugal leen ci diin l'islam bi waaye ñooñu ñu baax lañ mais ci naaru góoram ya ak jaasim gu ñaw ga am na ñu ci propagande yi dugal leen ci ci ci l'islam bi ñooñu mooy ñu dëgër bopp ñi waaw mooy ñu dëgër bopp ñi kon su ko defee fa tabarakallahu wa bi xaylihi wa bi xayrihi jalabal wara kon su ko defee yenent bi dara yi mayee mayee ku du ragal ñàkk waaye nag pour nga xam dëgg-dëgg tab moom lañu wax sànq foog nga xam lan mooy nay nga mën a xam tab parce que yenent bi nee na <clears throat> ak tabe garab la ci aljana gis nga koo gis mu tabe rek bàyyil xel ne garab googu nekk ci aljana dana ko ñoddi ba dugal ko aljana koo gis mu nay tab nay tamit garab la ca safara koo gis mu nay eh, mu ngoog eh, garab gi da koy ñoddi ba dugal ko safara kon nay baaxul nay baaxul yàlla ma ne yow doomu aadama bi joxeel ma jox la boo joxewul du ma la mën a jox kon nag fa tabaarakallaahu nañuy tabe ku ci mel ni abu aswad ad yi mooy jëmm ji nga xam ne moo mas alquran kon kooku xam nga ne am na cër ci lislaam bi am na cër ci diine ji waaye jëmm la woon ju baax waaye ku nay nag ku nay ndax tap tap daal garaat la tab cër la bu yàlla di jox doomu aadama nekkul ne diw mi doomi soxna la wala diw sëtu diw la wala diw doomi diw la rek mooy tax nga mën a tab di léeg tab mbaax la gu yàlla di branché ci xolu doomu aadama may dañuy wax ñu ne karawu bakkan la boo ko xëccee rek sa rongañ mën na tuuru kon ki ka yàlla mën loo rek yow yàlla deselatu la dara may na la saadatu zaare di texe àdduna ak àllaaxira moo tax dafa nayoo na naya naya naya naya nay ba foo natt ak nayam weesu na ko daan liggéey marché nag xam nga rek marché heure añ bu jotee sa soxna indi la añ boo ko taajee moom koo o ak koo awal yëpp danay ñëw pour lekk si abu asad duwali nag daan na bañ nit ñi lekk ci añam ba mu tabax benn benn affaire bu kawe nga xamante ne moom kase moo fay mën a toog ak football bi mën a tegu nga xamante ne bu la ooyee sax yow doo mën a ñëw parce que lu tax boo ñëwee doo foo mën a toog loolu yëpp pour siis la añam bi nag am benn xale boo xam ne xale bu doy waar la xale bi ne man daal danaa añ ci abu añu abu aswad aduwali bi xale bi romb un jour dama ne yaa wala bismillah xale bi ñëwal nga añ xale bi tamit wogasu rek daal di yéeg fexe yéeg yéeg yéeg ba yegg foofu fexe boroxlu rek ba benn euh, mu ngoog euh, luppam am fu mu tegee rek xale bi og loxo bi dànk ngan di dànk bu rëy boo xamante ne ah euh, abu aswad aduwali ne ko mas ma ko yaa walat yow nan nga tudd yow xale bi xale bi ne ko ismi luqmaan man luqmaan laa tudd abu aswad ne ko allahu akbar arafuka munzu anta fi batni ummika fa samoo ko luqmaan yow gars yi dañ laa xam ne yow ponkalu dànk ngay dànk ñu xam loolu avant ngay judd ñu tuddee la sa biiru ndey bi luqmaan yow ku mën a dànk nga xoolal loolu nga jàngatee si lan mooy abu aswad lu mu baaxee nu mu amee garaat nu mu amee tur nga xam ne histoire l'islam mënoo ko wax te tuddoo ko ci parce que moom mas alquran waaye xoolal moom nay gu mu nayoon xoolal nay gu mu nayoon kon su ko defee nay baaxut garab la goo xam ne da lay jàpp rek di la dugal safara waaye tab garab la boo xam ne da lay jàpp di la dugal aljana cheikh daa ñees mu ne tasakartu jawaadan axjalul wablu tallahu fa kullu jawaadin inda taha danilu mooy képp koo gis mu tabee rek bu ñëwee ci ron yent yàlla muhammad moom day suufee parce que lu tax mooy daal day xam ne moom ak tab sax commencé gul ko woon waxuma laa nag di yégal bu ca topp mooy sajaatuhu mooy njàmbaar yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku jàmbaar la woon ko baax la woon ko amoon fit la woon ku amoon góorgóorlu la woon ku amoon yitte la woon fa tabaarakallaahu li lay woon jàmbaaram nag lenn lañ ciy joxe tëjee ko mooy am na benn yëngu-yëngu bu mos a am madinatul munawwara yëngu-yëngu bu yéeme ñëpp jóg jël seen i ngàndaay dem pour xool yëngu-yëngu bi lan la buñ demee leen wiññeeku leen réglé naa situation bi ba pare bu doon a doon laa yëngu-yëngu bu am danaan taalibé dem leen yëri loolu parce que moom du sacrifice boppam waaye xoolal yonent bi sallallahu alayhi wa moo daan doon général ci xare ba bu ñëwee ci jumaa ji moo fiy doon général ci mihrab bi waaye nag si sëriñ yi ñooy doon général ci yu nooy yi ak yu neex yi ak yu tabaarakalaaw yu sedd yi waaye fu tàng fi dañuy yebal taalibe ñu dem doon général kon su ko defee yooyu ay jikko ak ay melo yoo xamante ne war nañ ci royaat yàlla yàlla ñu yàlla defal gàmmu jàmm ak salaam lépp luñ ci def ci salaatu ak salaam ak lu mën a doon rek yàlla ñu ko yàlla nangul ci barke soppeem bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax rek ne in uridu ila lislaha mastaatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi l unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu